salaamaaleykum mbokki amateur yi tey ma amati mbégte amati contentement dellu si waat ak yéen ci beneen numéro fii ci BGTV keroog ma dalaloon Bébé Saloum abonné yi joxoñ ma loxo tàllalaat baaraam ne nu Bébé Saloum lañ soxlawaat tey ñu seet si waat ko war a ak moom waxtaanaat ak moom ci làmb wax ci avenir wax ci forme actuelle am Bébé Saloum nuyooti naa la. waaw Thiatou Guewel maa ngi lay bëggee di la fayati di wax bisimilah ansubillah inna wali yàlla jërëjëfe sëriñ Abdul Karim Mbacke jaraw lakki naara moom oo fay waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla jul ci yonent bi sant suñuy ñaari waajur ñu ngi nuyu monde entier euh, fekk na ñi nekk ci hôpital yi bokk ak ñoom seen métit di leen masawu di ñaan sama borom seen bopp dalal leen seen i sago ñu ne ci campagnes yi ñu ngi bokk ak ñoom seenu tiis di ñaan sama delloo leen ci seen aajo képp ku am njàqare bu la dëkkmal yàlla na ko sama borom wàññi di wax senegal yàlla na fi jàmm sax di 18 safar gi àttan na ñaan googu yàlla na ci jógee loolu di waaw ci barke Sëñ Bamba Xaadimu Rasuul Bébé mhm. mhm. waaw sama relation ak Sëñ Abdou Karim day daa yàgg ca golf la woon ndax nag yàlla moom la ñu booleel ñuy ay ay ay ay saraxam di ay nattoom ndax ñun ñu ñàkk solo ñu xeebu ñi bu sëñ bi amee ci ñun cofeel ba bu ñu gisee muñ mbaam mu bëgg tey nattu rek ci moom ngir sunu ayib ah loolu dañ koy sant yàlla moo tax sëriñ bi tollu ci ñun foo xamante ne si kenn ku yàlla bind mënu see toll mënut a toll noonu si ñun ñu dugg ñu gis ni Bébé Saloum mu ngi yëngatu Europe. Mhm. li muy li mu nekk. fan mhm. gis ni ñu for ci yooyu béy ni yaa ngi waajal tournoi MMA. Mhm. loolu looy confirmer waaw loolu day mun naa ci wax tuuti rek dagg ko fa ndax nag maa ngi ci yooyu tànk nekk ceeg almaa yi. ndax ñoom ñoo ma xool ba ma doy leen ci wet googu ànd ceeg man comme nag fóot mu setagut la du neex a weer. waaye ah, waaw man day même bu setut nii nii sax bu buñ ma ko joxee ma sol ko waxuma laak buñ ko guppee ba mu set weer ko ba mu wow buñ ma ko solee ma teg ko ci sama taaru bii nii dox ak moom. bu ñëwee ci làmbi Sénégal. waaw làmbi Sénégal dama leen di ñaanal jàmm ku luxum ndax pénc ya bëri ponk ya bari ku nekk ak na nga cay doxee ñi ay amateur lañ ñi ay mbër lañ ñi ay promoteur lañ ñi ay coowandoo lañ ndax làmb njaboot. Euh, làmb làmbu nekk loo xam ne day marketing bu gaaw a jaay nit ba pare amuñ bopp gu ko téye amuñ maturité bu téye loolu ndax da nga gis produit bu ñëw ànd ak mbër ba jaay boppam ñu créé fi ay wax yu sew sewaan ba mu dem yoonam ba nu fi te ci ñun la jaayoo ba jar la mu doon ba pare loolu nag ñàkk tënku ñàkk ànd ci dëgg mooy waral loolu ndax lépp loo gis rek sëñ Abdoulaat ne woon na yëngu-yëngu yoo gis si dal lay mujj lépp loo gis rek ñàkk assise moo ko waral bañ a toog waxtaan ndax mbaam gàtt na waa ci jur gi la bokk bu ñu doon woo ñun acteurs yi ñun mbër yi damay am lu may naqarlu chaque jour te moo war te kuy nitu dëgg dina ko dégg réunion CNG yi gars yi di def duñ woo benn mbër assisté ko dañuy woo président u mbër bi président mbër bi te ñooñu duñ mbër yi ñooñu taxuñ làmb am taxuñ avancé génn li nga yor yor micro bi boo gisul mbër mi doo ko dékk kenn koo koy dékk lu muy wax tàng loxo ca kala mbéj ki ko doon kay du fi nekk ngay misaal keneen président ba écurie ba mbër mee tax ñu xam ko entraîneur ba mbër mee tax ñu xam ko kon nañ nawloo mbëri boole leen ci yëf yi di leen laaj seen xalaat donte tuuti na suñ ko waxee ba mu tuuti ñoom ñoom may ñu xelum yokkal nu ko mais ñu jàppee mbëri ay dof te mbëri taaral li fi ne ñoo tax kuñ fi tudd mbëree tax ñu tudd la muy président CNG muy ministre des sports ak muy keneen keneen a ci yem nañ xam ni mbëri seen i nawle lañ nañ xam ni mbëri seen i doom lañ nañ xam ni mbëri seen i rak lañ nga xam ni mbëray doxal làmb dañoo jël mbëri teg leen ca ginnaaw moo tax làmb doon leen ginnaaw buñ jëlee mbëri indi leen ci kanam làmb woon leen kanam parce que nag bañ doon nasandoog mbëri di noccee noog mbëri làmb daa tegoon fi mu tegu arrière cinq ans ci ginnaaw làmb ci la gënoon a neex moment bi ñu ne xoolal daaw mbëri fi année balance yëpp ñàkk déggoo ko waral nu maa nangu nag sa tele bii nga muumal ko sa bopp soo ko taalul xaw ma nun koy taalee ma bëgg cee wax loo xam ne yow waxoo ko ci munoo nooju munoo wëyalee munoo xattar bi munoo busulu munoo fi de xamoo lenn lu ñuy daanee mbër nga bëgg nag bëgg a jiitu mbër mi di wax ci moom da ngay gis benn ménager bu toog di wax loo xam ne barki yàlla yow mi mbër mi da ngay tiit gis entraîneur bu toog du jël téléphone sax woola bu toogee ñu jox ko micro mu mu bëgg a yàq dëru mbërëm te nit da nga toog ci toog waakaay boo xam ne loo wax ci sa mbër mi neex a sikk xam nga lu waral loolu muy yaa ko jege ki ngay àndal lu mu wax ci yow neex a gëm nañ xoolaat bu baax la ñuy wax te xam ne diggante dund ak dee dara xaju fi te diggante démb ak tey fàtte xaju fi. Bébé ñu gis ni làmb ji ñu ngi promoteur yaa ngi jooy sponsor yi yaa ngi woote fu ne di woo sponsor yi fu di leen woote wallu fu ne tey gisoo ni tamit yéen mbër yi tamit am ngeen ci part de responsabilité di waral sponsor yi di daw. waaw ñun am nañ ko ci mais bu dee cent la dix yi lañ ci def ñun quatre-vingt yi. promoteurs yi ñoo ko def dii si état bi la quatre-vingt yi ni dii si ni mu nekkee ñun mooy ñun ñu war a bëri làmb neex sponsor bi xam ñu dañuy dawante damay Bébé Saloum dafay teggi Malick Niang war a bëri moom mbaa Sa dem jëli ji booy bu kenn xamut sponsor bi xamut kooku du sawar a ñëw wala bu ñëwee du la jox lu lay arrangé promoteur bi li mu ci def mooy dañuy tànn seen booy yu kenn xamut indi nañ benn fans club tam gis nga mbooloo mu bari sax jaayul làmb tur mooy jaay làmb da ngay gis ñu naan ay mbooloo mbooloo mbooloo mbooloo yaa koy créer te ñun ñëpp am mbooloo à part bàcc Balla Gaye ci gone yi maa fi njëkk a def gisee ferme maa Garga Mbossé ma duma ko yóbbu ko top 5. léegi ñi toog ci banqaas yi kii joti na foo jotiwul Bébé Saloum am na ku koy waxal ci média bi léeg nga toog nitu làmb wax ba bàyyi wax wax juróomi nit ñoo xam ni ku ma ci gis tiit ngir jëf jama ko def du ma tudd. damay posé cent vingt trois kilos cent vingt quatre kilos te naanuma dara nekk xale bu ndaw comme ñoom def fi nag li ñu fi def ndax vingt deux combats ren laa bëri dix sept victoire neuf top cinq am cinq défaites waa léegi ay après nga léegi kooku li mu def bëriwul promoteur bi moo rey loolu boppam état bi mooy daa war a forcer sponsor yi far force ñu bokk ci ndax Tigo làmb ko jaay orange làmb ko jaay expresso làmb ko jaay lu tax làmb jaay ba pare ñu ne waxi violence te politique bi ñu ciy rey ay nit football bi ñu ciy rey ay nit te làmb soo ci dégg ku ñu rey état war a taxaw épaulé ñu ngir lan boo mënee tabax état euh, euh, euh, arène nationale ay milliards war a sponsoriser làmb mu dox mais léegi beneen bi mooy li ma naqari mooy stade Demba Diop moomuñu ko stade amitié moomuñu ko stade bii nii bu euh, nu mu tudd stade Jom bi moomuñu ko te la nga fay fayee gën a yomb li ñu war a fay suñu arène national bi. arène national lañ wax lan lañ ci war a fay nañu wàññil promoteurs yi charge bi ñu leen teg ngir ñu mën a tëgg làmb yi ndax nee nañ ñoo moom stade boobu lu ko mooy am ndaje politique rek lay mujj doon après. dëgg ji man dama koy wax man chaque jour mu am mille noon ak ñaar ñu dëggu ñoo ma gënal noon gi noon gi noon gi ci la yàlla gërëm laay wax man dëgg rek laay wax. aw ma noonu noo comprendre laa am ku comprendre lu may wax wala jëndee woo ma sa bopp jël samay kàddu muy sa kàddu déggee ko nu la neex am nga ci droit ndax fan yee wax naa ci ay mbër lu ne laa dégg ci net bi yàq nañ ma lu ne. waaye nag ko jiituwul mun ta xam sa taadu pënd waaw koo jiituwul mënut a xam sa taadu pënd ñooñu noon dugg ci net bi di ma saaga ku ma ci yitteeloon ma localiser la ba xam fi nga nekk teg lay coono mais jaru ko seen mbër yooyu noona dama leen di dëkk tey dama leen di dëkkaat bala nga fay jógee mu wax la mbër yi ma bëgg a bëreel waaw. naa ni loolu leer tey waaye ñu gis ni Bébé Saloum dafa créé ikiri jimboor yi lan moo waral Bébé Saloum guddi yi ñu toll war a mën a beru créé ikiri jimboor yi lan la. loolu mu ngi bëgg a defum diir parce que ci euh, bi ma ko créé ci laa bëreeg Modou Anta ci laa bëreeg l'an 2000 ci laa bëreeg Khadim Gadiaga ci laa bëreeg ñi ma la ñu ma mujjee bëreel ñëpp. waaw lu waral jimboor mooy dañoo nekkoon benn ikiri bu ñuy wax ikiri Kayor. ay ñoom daam sugeer ñoom ñabali ñoo ñoo ko créé woon ñu nekk biir caaroy gaar ñooñu dem nañ nekkatuñ fa benn kajoor kajoor newu fa kon bébé saalum mi fi nekk fa tëdd fiil tuddee wuñ ko écrit saalum kon duma nangu ñu koy tudde ay kajoor kajoor léegi nag ma ni leen dañuy beru ñun dem def ko caaroy changement bu caaroy gaar suñu papa ju ñuy wax Père Jimboor yi saan nekk ku baax koo xam ne munoo xàmmee li ko neex ak li ko naqari ànd ak ñun ci loolu ak Marle ak Baara ay ñoom met Babacar ay suñ président Mané ànd ak ñun comme mooy suñ kilifa te moo ñu jiitu ci làmb def ci lu ñu defut ñu ni ko jiitul tuddee ko école di Mbour ñu ànd ak yow lii ko waral. ñu gis ni tey làmb namm na la làmb xiif na la trop yaa xamti na la ndax sa façon ngi bëre sa façon ngi ambiance chute fi mu ne nii làmb ji tëggatémbe ñi fi nekk nii koo ci soxla kan ak kan ndax bëri nga fi angoo làmb ji liñ ma nammee wallaay ni ma leen nammee ko ndax damaa denc lu doy waar te ci diggante deux mille dix neuf deux mille vingt dama cee war a wane lu kéemaane barke Baye Karim Balla Gaye 2 dama may sens wala Gris Bordeaux wala Bombardier wala Tapha Tine wala Lac de Guiers 2 xamul tax ma dëkk ñooñu samay morom dañ maa ragal te boo leen dëkkee dëkk may leen moo defuñ fi loo fi defut dëkk naa fi Sa Thiès ñu ne waruma ko dëkk te Sa bëreel ma deuxième ñaari yoon Boy Niang bëreel ma deuxième ñaari yoon Lac Rose bëreel ma deuxième ñaari yoon ñooñu dañ cee ñoo lan lañ fi def lu ma fi deful Malick Niang lan la fi def lu ma bërul ñoo bokkuñu daan amaama daan daan ko law rek laam boole nanu Yékini Junior maa ko pindam maa daan Modou Anta Al daan làmb danoo boole Papa Sow ndaanaan la mhm. waaye ñi ko ñi ma daana ko daan ama ma daan daan ko lamb boole nañu waa léegi koo ci dëkk nag may ko pour moo te defuñ ko loo fi defut koo ci wàññi ndamam wàññi samay ndam samay ndam wat ko mbaa mëppale leen ko kon léegi dëkkatuma leen samay mag laay dëkk ñu may ma sens mbaa samay rakk ñëw ma may leen sens ñi féetee suuf ku ñëw ma may ko sens boo yaroo man yaru rek gone gu réew daal waxuma ci yow dara gone gu ami teggin boo ñëwee ma may la sens nay yaawu jaal mbaa keneen mbaa samay mag ma sens ndax samay morom ñemewuñ ma ndax xam nañ ko ma ci jàpp rëq sa ndigg Baay Faal bi këllu sañ-sañ bi la génne waaw teg ci majaal bi rek mbaa mu jëlal ko boppam te day gën a bëri. Bébé Saloum lay tàgg. santaat sëñ Abdou Karim santaat sëñ Abdou Karim di wax gaa yi jóg leen takk mu jóg ñoqal coo ko waaw. barki sëñ Bamba sëñ Bamba xewle de jaay leen lal yi dagg nelaw yi liggéey li sëñ Bamba ñëwaat ndax moo fi des ci liggéey Bamba point Bamba far force. barki sëñ Bamba. jërëjëf Bébé Saloum. mbokk yi mu ngi noonu tey toogoon na nag ndaanaan defe naa ni kàddu yi leer na wax na ñi mu dëkku nag làmb mënu koo bañ mbër mënu koo bañ ñi nekk ca kaw ba ñu nekk ci suuf bawul kenn bëree ko ñor làmb la bëgg may gërëm rek di gërëm sama sang ba sama sëriñ ba sëñ Afiya Mbàkke yàlla na yàlla yokk yokku leeram doomam ja sëñ Baara nuyu naat ko sergal naa ko waaye di gërëm sama gaay waa Ba jaaxle sama giir Lamine Ba di nuyu waa balcon ñoom Pambay ñoomin Papis di leen wax ni rek àndoon nag waagaan sama soppe bi sama xarit bi waaye ànd ak jeunes yi caméraman yi Seydina Omar borom faar bu yoon jeexul rek waax su lu jeex maa génn ci beneen numéro fii ci BGTV.